société yu bari dañu nekk ay covid bi ñëw yokkaat donc yeneen jafe ñu may leen chance ñu am fu ñu toog seen activité pour mën commencer waat encore ak ñi nga xamante ni am xel te xamaguñu fu jaar ak ñi nga xam ne am projet aussi non dimbali bi du xaalis parce que day après d'abord nous on prépare nit ki dañ koy préparer d'abord mu entrepreneur pour entrepreneur dañ lay fexe yow nan ngay nan nga mel pour mel entrepreneur defal defal ay formation Euh, yoo xamante ni day tax nga mën a xam fan ngay fan ngay. que su dee à donc à 15 jours déjà fukki fan ak juróom ñu am plus de 400 demandes cest à que intéressé na leen. Thiès ni mu ko soigé dama damay yor benn société bu tudd Madina Infotech donc ma nekk Thiès jànge Thiès yaroo Thiès. Euh, def sama activité yëpp Thiès moo tax ma ne d' abord dinaa ko def dans la région donc Thiès au moins pour créer donc décentralisation bi xanaa yokk si man it sama société bi ma koy créer mun naa ko créer Dakar mais j'ai préféré aussi ñëw donc installer ko Thiès pour au moins donc déconcorsé un peu Dakar. lii la ñu joxe rek warul nekk euh, critère bi wax liggéey bi baax na ou pas xam nga lan moo war ne liggéey bi baax na ou pas joxe nañu fukki entreprise juróom-ñett wala juróom-ñaar yi euh, lajuñu mais bu dee da fukk. juróom benn yi lajj war nga xoolaat sa bopp loolu lan moo tax mooy am mooy xëy na projet yi ñu ko doon toggee demeewul noonu li ko waral aussi xëy na bu ñu joxee nit ki xaalis ba pare gungewuñ ko loolu mooy rôle incubateur ñu jox la xaalis nga commencé liggéey mu lay taataan di xool bés bu nekk foo toll beneen bi aussi defe naa wax nañ ko mooy suñu fiscalité dafa yombul ci PME yi commencé goo sax ñu la ñëwal fay. loolu yëpp dañ ko war a xoolaat defe naa wax nañ ko aussi y a des problèmes de compétitivité yi nga xam ne naa buñ ci liggéeyee xëy na xëyu ndaw yi. dina faju te ñu jàpp ne affaire xëy secteur privé moo koy réglé kooku moom defe naa dafa leer ci bopp ñëpp. Mm. état bi nag ñu ngi def effort yu bëri pour di favoriser jeunes yi mais même jeunes yi ñuy financé pour ñu développer des activités. voilà defe naa loolu buñ ko jàppee xëy na ëllëg jàppal incubateur ñu mel ni moom moom lu muy wane mooy Sénégal yamul jam ñaajo mm-hmm mënoo financé fii benn xale jox ko 1 million wala 2 millions ne ko boo bëggee ko la xoolal sa liggéey ndax mi ngi dox demal Ndakaaru bu passé ñetti yoon jeex na dootul dem fenn il faut des initiatives comme ça état bi jàppale ko ñu dem et puis xale moo mën wax ak xale. fii defe naa ñu fi gis ñëpp gis naa ko gis naa Cheikh Ndigal ñoom bu ñu waxee xale yi defe naa espoir na mën gëna am xale yi nañu gën a c'est possible té defe naa dëkk bi mën gëna jëm kanam. que mu mënee bari na man ñaar la ci xam Dakar té bo xolé ñaar yi nga xam Dakar amna benn bi euh, tubaab yi ñu nekk ci ginnaw di leen financer régulièrement moy li ñu doon wax sank nañu jappalé suñu secteur privé local lolu buñ ko deful duñ ci génn mukk dafa leer nañ. la wa centre d'incubation et d'impulsion des entreprises de Thiès woote fi muy ñuy xalaat naka lañuy ñuy def ba entreprise yi nga xamante ni.

pour accompagner l'entreprise, c'est une création c'est une judo, mais également accompagner deux durant tout leur processus pour que les entreprises puissent a am travail, dire en tant qu'entreprise, nous avons vraiment indi une contribution pour voir ni surtout entreprise yi nga maintenu a démarrer mooy start-up on war les par des moyens financiers accompagner les jàppale les ba entreprises parce que de que des, accompagné l'entreprise du ñu à am surtout faire la promotion de l'emploi ndax tey entreprise yi juddu ñooy ay valeur mais également ñooy créer des emplois ñëpp xam na ni xen ji entreprise yu bëri am na ay difficultés ndax euh, feebar bi nga xamante ni moom fi mais également am nañ yaakaar si le plan de relance bi nga xamante le président Macky Sall lu woote na ko mais récemment aussi woote na pour jàppale ndaw ñi si wàllum xëy mais aussi ci walum créer liguey et je pense que tay liñu fi wax nek réflexion bi bi fi wax dina tax nit ki so amé société boo soo amee entreprise dina xam euh, naka nga koy gérer ba ëllëg do am ay jafé jafé waaw je pense que culture yooyu ci ëpp moy suñu ndaw ñi nga xamante ni dañ leen jox ay jumtuwaay pour ñu créer ay emploi du ñu mën am ay repères

cinq ans di leen leen bàyyi ba ñu dëgër loolooy tax entreprise yi mën a am